ma ñëw ci ki nga mooy président fan si club bi président nuyu naa la. waaye fay naa la fay naa la grand bi lépp dafa féex sant yàlla bu wér. mais ñu gis ngeen di bëre ki nga xamante ni suy bëree chaque jour day mobiliser naka ngeen di waajee. waaw comme comme dab rek parce que ñaari combat yi passé yëpp bee dafa fekk mu tamit xanaa la finaalu ñu dem am dem ñëw gars bëri sonn xam nga mel suba la dugub daan na ëpp loolu bu baax a baax te bii am nañ yaakaar bu ñu demee bu ñu demee Baba Diaw kontaan parce que ñëpp ñu a jàpp dinañ te boo gisee sax ma gën a sax am mbégte maanaam ñun jeunesse rek suñu ñun duglu saa yu bëri saa même borom xaalis bu ñu ñëw sax ay bloc bi def ko si marqué si biir rek non non ay famille dina xale ba nit moom chaque jour buy dem rek day bëgg yeneen jàppale di ñëw parce que loolu adduna quoi parce que adduna maanaam ñëpp ñëpp ñoo far ñëpp ay Sénégalais lañu ku si mel ni suñu grand ba chaque màggal màggal bi tubaab bu demee këram la ñuy daal te moo ko yor sama ñu koy sant loolu di ko gërëm te moo na yor xaalisam di jëm si yeneen mbër xam nga mais day a tax Abdou Lahat di ko sant ko gërëm suñu suñu ni sax gëm naa dina si jàpp parce que moom combat double yi passé yëpp doo xam naa day fekk mu voyagé day fekk mu voyagé quoi bu si si jàpp borom lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy supporter double moteur. waaw ñun dañuy dem non non à la violence rek ñun loolu ñun loolu la ñuy parce que Rebeuss na tur moo am doole mais boo xoolee combat yi boo xoolee combat yi si mujj yëpp dem. ñu ñuy demee noonu la ñuy ñibbisee double léegi nga gis beneen nga gis ay supporters yoo xam kuñu kuñu tooñul jot na mais si biir jot yooyu tamit dañuy jot ak yow laal sa alal sànni maanaam ñu bañ a laal sa poos ne ñu rek nga gis ñu dem esat bu ñuy ñëwee duñ daal téléphone jàmbur duñ laal moto jàmbur parce que loolu la ñu yore quoi mbër moom noonu la ñu yore mais au départ ba ñuy dox si deuxième combat bi ñu doon def ay ñaataf yoo xam ne doo comprendre mais après moom daf ñu yar moom parce que moom su moom lu ñu def daal moom bu ñu nee bàyyi ñu bàyyi bu ñu nee appliqué ñu appliqué waaw mbër moom nu lay demee ak moom. lan nga koy wax. waaw mbër waaw moom pare na pare na di nga xamal naa bu demee rek moom moom bu arbitre sifflé rek nay bàyyi xel supporter mi nay bàyyi xel loolu rek laa koy am lu ngay wax waaye moom le reste moom amul lu ko wax parce que moom bu dee bëre bi mun na ko bu dee xeex bi mun na ko te loolu maanaam ay costume xam entraîné na ko ba mu pare te am naa yaakaar moom bu demee moom dinañ libéré si deux minutes wala trois minutes bu nekkee seen faal. kontaan nañ ci yow. ah kontaan